Ah, salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñu suivre ci seen site internet luttetv.com Olof Ndiaye nee na ko fóotal mbët roccil bar dañoo jël woon Papa Boy Djiné mu war a ak Papa Yada numéro 2 bu Tëngéej le 17 mars Jibson Jibson production moo tëgg combat boobu noonu tey nag fekk nañ ko fii Tëngéej moom Papa Yada ci ay mbokkam muy entraîné di waajal le 17 dañ koy nuyu laaj ko fan ci waajtaay bi bàyyi ko mu nuyu ñu suivre luttetv.com yëpp. gaynde gi maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay ziar Lamine di la delloo fay xam nga di gërëm waa Tëngéej di nuyu waa Tëngéej ñëpp di leen sant di leen gërëm waaw pour masaalu bëloo bi ñu nekk nii tamit di nuyu bëloo bu baax a baax waaw moom mooy loolu. da ngaa war a bëri le 17 mars sa diggante la ak papa booy jinne ah. waaw dama war a bëri le 17 mars maa papa booy jinne mais dina xam ne Baye Fall moo jaaxal jinne jaaxal dëmm balaa ñoo dugg ci jinne ak dëmm ñaata combat nga bëre ko man bëre naa six combats six victoire. six combats six victoire nga. waaw te rek laa daan ay pàcc darul samay tuddee seen tur parce que man moom. kan nga daan. waaw daan naa fi jarul may tudd seen tur quoi parce que ma romb kan nga mujjee daan xeeru ngor laa mujjee Pàccaam ah, Pàccaam ah, laa mujjee ah, xeeru ngor waaw. ak xeeru ngor ak nga mujjee bëreel. xeeru ngor laa mujjee bëreel. nga dugg nag ci ci Papa Boy mu mujjee bëree combat bu metti daaw digganteem ak Nokia. Mm. xeex xeex bu metti nga dugg ci moom. xanaa seetlu woo ko wala laajoo say mbokk seetaanu ma ko sax bu yéem gaay yi seetaan parce que xam nga daal nit ak may bës rek moo tax mu nekk si mais deful lu ma deful si làmba man bi may nekk xale laa njëkk a jël ndaf lañ indi ko tëngéej bi may nekk jeune bi may nekk bi may toll samay 18 ans laa jàpp usine doole daan ko. usine doole usine doole waaw. mais kii nag moom bu bu deewoo jotee rek mën la kaa ñu deewoo. kaa ñu dee bu boobaa kooku kooku du song du bëre dama koy ñaanal lenn rek dama gars yi dañ naan ku dàq xeex ku dàq bëre mais moom combat bi nii bi si topp yàlla na yàlla may ndam bu sooba yàlla. loolu laa koy ñaanal moom yàlla na ko yàlla may ndam bàyyi man xale bu ndaw laa waa Tëngéej dañ ma sas. bala laa waa Tëngéej sas ki ngay bëreel du xale. ki ngay bëreel waaw kooku mënul doon xale ba gën ma doon xale xëy na moom moo nekk si média yi di taasu di wax di ma ci ay tuñ ñun ñu lool ñun ay Baay Faal lañ ay Baay Daaru lañ ñun Tëngéej lañ dëkk Rufisque réel góor waaw réel góor lañ dëkk respect nag xam nga ñun moom ay ndongo daara lañ kenn mënul dara yàlla rek dañuy ñaan bu jour yàlla ñu yàlla may ndam si barke Seydina Muhammad ndam lu leer nañ te amul sa ay sikki saaka ay poojaax yi daan ba toog si kawam bu soobee yàlla. daan ba toog ci kawam dafa am loo ko wax mu metti ko te loolu instant bi daf koo téye daf ko fas yéene bëriwaale ak yow. mooy ban wax noonu. ah man xam nga loo ko yow ko yaay wax. <laughs> daa mel ne wax ma ko mu metti ko. daa waroon jaar si wax ji ma waxaat ko ko. barki Serigne Bam. mbaa du gën a metti kon si yow. gën a metti. waa kooku ñi may bëral ñoo gën a metti fuuf fi ma jaar. bu fa jaaree waxuma la taxa ban rek mais na taxa la neen barki Serigne Bamba. instant bi nag nanguwul man dara nanguwul a man bëri nanguwula man xeex waaye bu arbitre sifflé seen diggante dafa fas yéene jëflante ak yow nee na. waaw day jëflante ak jox ko cër. day jëflante man naan na ay poom nganda ngandalu na def na mais bu jour ba li mu liggéey moom na wan ne waa man liggéey naa xale bu ndaw laa man jour boobu naka wane si stade bi man kii ëpp ma jom. man dama am jom làmba dama judd si ay pek pekaaru mbër laa judd Abdourahmane Ndiaye Falang mi ngay dégg sama maam la maam paa mu mbuur sama maam la assurance mu mbuur mii nii nii mag la si man mais yooyu yow dama ko jël tegee ko ne le man maay sama champion boobu waaw. moom nag mbër nee na nee na nekkagul mbër bu mag mais mbër bu mag la jàppee boppam. mbër bu mag waaw waaw man maa waaw am na benn intervention ma seetaan mu ne mbër mu mag la affaire ko la def si làmba ji ah, kooku ndéykay moo ko jëlee fële may ko bës nii rek mu bëgg a sonal nit ñi naan champion kooku daa def si làmba dara lan la fi def lan la fi def neel combat bi ay kii ñoo ko daal nu mu tuddati mbër yooyu noonu waaye kooku baay yow baay bërëb bi baay bu ma wax wax loo waa kii waruma wax loo parce que man ma nekk si yoon. foog nga wax ak moom nag da ngeen wax ba da ngeen wax ba pare jëflante. non li may wax moom yàggatul dimanche bii nii bi stop moom laay wax moom lu leer nañ laay ñëw indil ko li ma indil wan naka man dañ ma kon moom du ma fontoo xale bu ndaw laa na dëggal boppam kon entraîné naan nay affaire am nganda na sekki na. naanu affaire de. waaw naanu lay affaire moom loolu moom la concerné pas man loolu concerné ma mais bu jour baa ngay xam ne barki Serigne Bamba non yàlla baax na wax baaxul quoi. wax day yàq. benn affaire boo xamante ne yóbbante woon na la ko nee na nga def ko sa xel nee na moom du koy ragal du koy tiit. nee na moom du koy ragal du koy tiit. saxantuma lax Baay Faal su ko la ñuy doxee. amul lu ñuy tiit bu naree dugg ci làmba di am lu ñuy xel ñaar wala dara kon ñu dañuy sonal suñuy. kon kay yéen ñaar bu leen bëre xeex leen. xeex. <laughs> wala xeex mënul ñàkk. kooku déggoo ma de Balla Gaye Balla Gaye amul firu jàkkaarloo man di xeexaax man. ah. Balla mi mu dëkkal moom seen champion bu xeexaax man. déggoo ma de maa ngi jégalu nag si kàddu bu baax la. maa ngi jégalu si laa métti ci li nga wax nii du métti Balla Gaye du métti du métti waa géej waay. waaw parce que dama gëm sama bopp man ay Balla Gaye ma ne ma jàmbal jaañ papa yaada man sama laa gëm ndaw Rufisque laa déggoo Rufisque xanaa Riol góor Rio man Rio laa dëkk fii si Lamfor yi dubul mbëdal sa reyaat ah ay bëloo yi nii bu ñu may teeri ma liggéey lu métti ay ay dañ may teeri ma liggéey loolu métti ay papa yaada kon man booy goo ma ne ñoo may teer si làmba quoi mais xëy na moom daa yor micro am xam nga ginaar yi kay ndey gay di ñañal neex mu yor làmbañam topp YouTube bi di wax naan kanjang kanjang mais mbër tamit dafa war am ku koy ñoñal ginaar de. waaw am ku koy ñoñal moo tax mu puy noonu kooku deful si làmba dara lan la fi def Nokia la daan daw. waaw ban Nokia sans verre. sans verre la. waaw yow waaw yaa ngoon laa maja wala nekkoo fa. maa nga fa mais daf koo gagné par avertissement. waaw effectivement man man samay combat masu man damay daan ba toog sa kaw te bu jour ba lay xam ne xoolal moom na taxaw marquage bu ndéygay marquage ka moom mu mool taxaw xaar ma si kawam laa jëm na may naaw si kawam bu boobaa lay xam ne maa gën a bëgg dara fuuf. yaa ko gën a bëgg. man xale laa barki Serigne Bamba xale bu ndaw. yaa moom ku dàq bëre. maa moom ku daax ko bëre bu baa nga koy xam. looy jàpp yow lan nga jàpp sa xel. li ma jàpp sama xel fo. <laughs> yéen ñaar naa ku dàq bëre bi. man li nga jàpp sa xel. non man Papa Djiné maax moom loolu du taxaw di si si werante ay dàqante bëre gaa yi dañuy gis te gars yi xam nañ sama yoon moom xam nañu yoonam parce que moom amul yoon. waxuma ba ku dàq bëre de. man ma sama mën a bëre wala dara du ma xam ndamoo de man dañ ma xëy waxal mais man duma toog naan maa dàq bëre kii maa dàq bëre kaa. ku dàq Balla Gaye xam na ne sax non wax baaxul sax. Balla waxal Balla Gaye baaxul. déet waxal xanaa li wax ñemewoo ko. non géej waay déggoo ma la wax de ñoom xam nañ ne booy bi nii noo sens lay bëree sens te am sens na taxaw rek xaar ma incha allahu rabbi bu ñëwe bu jour bi ñëwee dinaa la wan ni ma mane. man dañ ma yeb ma nekk xale bu ndaw nekk tëngéej nekk fee samay mag ay doomu daangu ay ama neex ay mambaya gars yi mbëri tëngéej yi ay gaamu bàyyiwuma kenn ñëpp samay mag lañ maa fi gën a ndaw. ko ëpp doole yéen ñaar. yàlla rek a am doole. doole bëri laa wax doole géew ba kan moo ko ëpp yéen. doole géew <laughs> non loolu duñ si débat dañuy bàyyi ba le jour rek ñëw def li ñu war a def. moom dafa ponkal de. waa nee na ponkal na gara man ponkal jaaxaluma ponkal mu a jaar na mbappat sama ginnaaw fi man ponkal jaaxaluma tànk jaaxaluma ponkal jaaxaluma dara jaaxaluma parce que xamul tax dama dëkkax ñu ko ëpp ñaari yoon ñu ko ëpp ñeenti yoon doole ay Ronaldo di ñoom ñu ko gën a yéeme fuuf gën ko soxor man faalewu ma loolu man tapetuma loolu mu ngan ree tapet kon ma ba dem budd ji gaalu fara tourné fële hmm. barki Serigne Ba yaa fi tudd sànq ma nga dañ koy ñooñal ginaar yow amagoo ku lay kii defaral ginaar loolu <laughs> non man xale laa bàyyi ma bàyyi ba si kanam nag. xale yi rek ñoo koy defar kañ ngay am ku lay defaral instant bi mër dafa war a. non yàggatul léegi nii rek xam naa ma génnee si combat bi incha allah. <laughs> ndeyge bu desee rak rek nga dem ci moom bu fekkee ndeyge am na rak. waaw man moom xale bu ndaw laa xale bu ndaw laa yàkkamtuwuma so fii daal. waaw may liggéey lu bari dese na ma si làmb kooku bu ñu taxawee si stade bi cóob mu taxaw ma taxaw dinañ xam ka moo war a dem maax moom bokkuñu diggi doom la. bokkuñu. kon hmm. roi des arènes fii ma teg sama bët. chaque kii waruma sax wax loo barki Serigne Ba mais làmmañam bi mu jël di wax si YouTube bi toppa naan champion la nii di ñoode di mar ay tuñ la war a bàyyi dafa fi lu yem gars yi daanu fi kenn. Papa Ji ne bu fekkoon làmb rek làmb du ma booleex moom mais xam nga la ma ma booleex moom wax tur ngeen may nañ ko bës dëgg la xam nga Sénégal moom mooy loolu yaa ma gën a xam dañuy yërëm nit daal. waaw moom na xam na ne gars yi dañ koy yërëm rek si xarlu bi. dañ koy yërëm. waaw loo koy wax jàkkaarloo ak moom nga wax ko li koy wax. waaw li ma koy wax. avant avant xool ko fii nga wax ko. non man maa ngi xool télé bi man ainsi gars yi laay xool li ñuy liggéey man maa ngi si liggéey bi ne man liggéeyuma pour xooluma sax pour Papa Djiné man leneen laay xool si kaw. te xool Papa Boy Djiné te wax ak moom. waaw Njaaña. Njaaña maa ngay nuyu bu baax. au passage kan mooy Njaaña. Njaaña rek u ndey non wax baaxul sax mais mooy loolu quoi yow yaa ma gën a xam <laughs> wax boobu baaxul rek mais. dafa mel ni nag Papa Boy Djiné dalaa jekku ci gàllaaj instant bii. xam nga wax waaw. bor boobu nag dinaa si gën a xamal dara gis na làmba yow te jii nañ la jël takkal la ay gàllaaj takkal la lépp dem teg la si làmba ji ba xam koy daan gis na làmba première làmba première gàllaaj xam nga lan la entraîné fit ak jom. kon yow yaakaar nga ni man bu ñu ma takkaloon gàllaaj ma daan kenn moom mu ngi def lu ne. lu ne mu ngay def lu ne mais kii ngay gis nii kii si koor yee kii bàyyi ni muy doxee si bul na ko sax barki arxuraan te ngeen dañ ma yeb ma àndax Baye Fall yi waaw avant tout nag maa ngi jégalu nag maa ngi nuyu maam Thierno Sané maam Thierno Sané Baye Modou Kara maa ngay nuyu bu baax a baax a baax nit ku baax nit ku yoyof nit oyof barki Serigne Bamba waa kër Baye instant yi bàyyiwuma leen waaw di nuyu ñëpp waa kër sëñ Jili Mbacke waaw di nuyu ñëpp waa Tëngéej nee nag autorité yi. nañ génn jàpp si combat bi nga nar a ñëwee que moom tamit day mobiliser day andi ay supporters waaw parce que man pare naa fépp pare bi mooy lan waa génn bu sooba yàlla jàppale xale bu ndaw bi ñoom yi ñoom loolu la war a def nuyu ma mère ngeen mama ngaati waaw parce que maa ngay dégg muy wax lu am sens nañ génn jàppale xale bi te loolu mooy yoon dañu war a génn jàppale Papa Yade numéro 2 te ngay dafa war a am champion daa am lu ñu manqué te li ñu manqué xam nga gars yi ñoo ko war a fësal wane waaw parce que gars yi am na fu ñu teg waaw Baye Fallou coxo yi gars yi ñu ngi mobiliser gars yi yëpp ñu ngi paral combat bi waa Tëngéej maire Tëngéej nii kii ka yor nag laa xamul nu mu tudd nu mu tudd kenn xamu ko moom yi jàppalewul Tëngéej ndaw ñi kenn xamu ko grand kenn xamu ko dafa fi dara dañ bëgg a bàyyi xolal mu jàppale Tëngéej ndaw yi barki sëriñ Bamba baa ay maare ni ay Souleymane Doy yi ñoo ñuy jàppale mais kooku kenn xamu ko barki yàlla xaw ma daaw nan am waaw ñaar. noonu lañ koy waxee Daouda Niang na génn jàppale ndaw yi kenn xamu ko Macky Sall nañ dimbali si daaw Niang parce que dafa fi dara jàppa maire di jël seen i ndugga yooyu la nekkee si dëkk bi na bàyyi yooyu noonu gis na maire baay dañuy joge àll di bay seen i doom di sonn ñuy bay di roose di xaar ay weer pour mu ñor xam nga ñoom ñu ñëw bàyyi jàppaleen bàyyi bu ñu tegee njaay mi pour jaay ko fii jóge pour sori booy ndeysaan xam nga yor seen kaar dugal seen i la ñëw di ko jaay ñu jël seen seen seen njaay jaay leen doole damay digal nag samay moroom kuy liggéey si liggéey yooyu noonu naka teel a bàyyi boo koy liggéey doo dem yow imaginer ku ku ji ku ji bàyyi xam nga jiwam di xaar pour mu ñor mu dem jaay ko di dundal njabootam nga jël ko xam nga ba pare dàq ka gaañ ka jël ay bagages dem yobbu ko seen waa kër ñu lekk ka nañ maytu yooyu àq gis na dëkk bi ngay gis nii fii àdduna jarul jaay kenn dara day jeex barki alxuraan. aywa looy tàggatoo looy tàggatoo. waaw waaw di nuyu bëloo waaw ay Badou Mbay waaw open presse bi nag le treize la le treize waa Tëngéej nañ nga waaj open presse bi la treize incha allah ay kaañ yi ay jibi jibi moom da siy jàpp bu baax ndeysaan sama doomu nday boobu namul dara waaw di gërëm ay Alpha Boldo gars yi xam nga waa Tëngéej bàyyiwuñu kenn booy di topp sama ginnaaw ay suñu booy bu ma limee damay juum waaw di sant sama yaay nag sama yaay baay maa ngay ñaanal xam maa ngay ñaanal ngir bu nekkul woon moom barke arxuraan lii sa amaana lu am ngir dafa yaaga sonn si man waaw di ka ñaanal di ka nag waa jandeer xam nga waa ñaliñ funjung felliir mbasis waaw jàpp mbasis jàpp caare jàpp fépp mbuur xam nga këfantiñ Casamance dëkk bi woowuma kenn parce que Papa Yada bi turam moo ma teel a njiitu si làmba di woo ñëpp si combat bi ñu jàpp si bërëb bu bëri wax bi ma defaral ko dem ñibbi xoolaat la neen jaajëf di oo mbokku lebu yëpp penc yëpp juróom-ñaari penc yëpp maa ngi leen di woo ñooy wane am ngeen doom ne Lion di génn na am na am na na gune bu ndaw bu génn si lebu yi ngeen jàppale ko bu